asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalo àq tey baal àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu nu mën a nekk. dellusiwaat nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seet lu ñu di ko amale seen sit bi nuy wax tiiw Tanime TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Deko gis ngeen affiche bi noonu mi ngi noonu képp koo xam bëgg ngaa jokkoo ak Baye Modou ngir soxla ay moquette. wala nga soxla ay taabali bureau wala ay fauteuil wala armoire wala lépp loo xam ne ay ventilateur yu bari yoo xam ne daal ma nga fa képp koo xamante ni soxla nga ko boo euh, jokkoog moom ci Minam Déco wala nga dem ci place am mi ngi nekk en face jàkkaarloog station 28 bi féete ko sawu euh, mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci président mag Sall wala ensemble bi nga xam ne doon nañ ko wootee loolu da ngay gis njuumte loo xam daal wax dëgg yàlla day bàyyi ko toujours ci état bi ndax xam nañ ne aw askan war nga bala ngaa def loo xamante ni ab loi da koo tëral te ñëpp war a toog xippi seeni bët xool ko wala ñëpp war a jël seen àq di ko joxe ca loola da ngay xool distance boo xamante ni ñi ëpp ci askan wi jekk nan mais bu fekkee ñi ëpp jékkunu nga bëgg a def lii nga bëgg a def loolu day waral lan fay tëral. du aw yoon wala bu awee yoon ay problème lay indi li ma bëgg a wax mooy élection yi ñu def muy élection député ci biir nawet bi lan ko def ñi nekk ci àll bi di bay ñi nekk ci tool yi ñee nekk ca taay ñee nekk nga xam ne kenn daanaka xawula mën a def euh, ay élection ndax parce que li ko waral nawet bi du ñëpp ñoo am liberté te nawet bi ja suur yi ñu ko doon def fekk na sax far di ëpp doon na taw ku génn Touba gi ñu nekkee doon na taw ak feneen ak feneen ndax ñëpp mën nanoo jaar ci biir taw bi di woote ndax ñenn ñi xam na ne te jaral na leen ko wala jaralu leen ko loolu dafa am ñennat ci askan wi ñoo ko moom te gis nga ñàkk yor programme bu baax daanaka lu bari ci Macky Sall lay delluwaat ci état bi gis nga gone yu ndaw yi daanaka ñi doon ñi woote ñi ëpp ci xale yi ñi doon woote ñi ëpp benn Bokk Yaakaar la déggal Yewwi Askan Wi lan wooteel ak Wallu Sénégal ndax ñi ëpp ci xale yi moom ñi ñi ci ëpp xale yëpp ñi ëpp ñi ngi ànd ak Ousmane Sonko loolu moom wax ko ak ñàkk ko wax ñoo yem benn bi ci des gis nga yu mel nii yëpp day dellusiwaat ci président ak Sall xañ na mag ñi xam ne kii ni muy liggéey mi ngi liggéey mais gone yi nga xam ne ñoom dafa changement leen bëgg changement leen bëgg kooku moom daf leen di jaral lu nekk. ndax ay heures yi muy taw ndax mag ñu màggat yenn yéeg ndax ki amut oto ndax ki amut trasport kooku mën naa génn déedéet da nga naa déedéet mënu ko ki nga xam ne toolam day bëgg a booy ndax dina ko fa bàyyi ñëw naa damay woote ay élection yoo xamante ni kii moo tax bu ne Sénégal 17 <coughs> habit 10 17 million habitants la ñu ne la xawma 6 million wala 5 million ñoo wote loolu da ngay xam ne kon woot amu fa. beneen bi ci desaat xoolal lu mel ni tey li mu defoon ci parrainage bi parrainage bi nga xam ne daf cee boole ay nit ñi ko ci neex ak ñi neexut loola fi mu toll moo ko gën a juralaat lii moo ko gën a juralaat bu bàyyi woon ñoom ñëpp ñi bëggoon a dem sëñ buub ñoom ak buggaan ak ñeneen ak ñeneen ñëpp ñu dem kon problème bii nu nii nu ko gañee gañe gi duñ ko gañee noonu ah. duñ ko gañee noonu ndax danoo mujj mobiliser ànd ak yeewi askan wi ñun ñi ànd ak ñoom gis ngeen buggaan dafa mujj sama def déclaration bu leer ñi deful déclaration bu leer it ci ginnaaw bi leen ànd ah. yooyu yëpp nag la koy waral gis nga ni mu defaat beneen bi ñu wax ñu ne leer yi duñ dem loola gën a tee merloo farata ñu doon campagne sax ak ñii dem député bokkuñu Ousmane Sonko mi doon campagne du député te moo gañelu moo gañelu Macky Sall gañe bii ñu ko gañe Ousmane Sonko moo ko gañe te mën naa am bu demoon xañ na loolu du ci mu <coughs> ngi jégalu xaw soj bi beneen bi ci desaat mooy euh, yu mel noon daal jar na seet lii mu defaati tamit ensemble bi ne daf koy def le douze màggalu Tuubaa doon la quinze ak màggalu Tuubaa dimension bi mu am ci ci àdduna bi boo demoon ay bitim réew am na ci place yu bari day widdi dëkk ba sax day widdi li ñuy jaay ci billet avion dañuy xam ne am na événement bu am Sénégal loolu ñëpp a ko xamandoo segam ñoom ñi nekk biti réew ñoo xam waxantuma laa ñu nekk Sénégal Sénégal fi ñu toll ñii nga xam ne seen yoon nekkut ci màggal dañuy xeex màggal sax di ko konkutur bu màggal dikkee danañ ci loru ñoom nan la lañuy loroo yenn saa ñu bëgg a jënd dara wala ñu bëgg a defar lu dara wala ñu bëgg a dem duñu mën a dem duñu mën a dem duñu mën a dikk lu koy def mooy màggal gi mooy boleke lépp léegi nga bëgg diggante boo xam ñaari fan a ci des nga ne da fiy def ensemble ah assemblée bi indi problème yu bari yoo xamante ni nit ñaa nga fa ñu bëggoon a màggal si mën na bañ a màggal si ñu bëgg a màggal si kenn mënut fexe ba dem lool it di këlkën yu baax daal am na solo tey bu ñu ko defoon tey lu mel nii ginnaaw màggal alxamis la ñuy màggal alxamis ajjuma samedi dimanche altine ñu def ko loolu génn na màggal gi te àggut ca gàmmu ga nga def ko distance boobu ñëpp mën a toog ndax ensemble dafa doon loo xamante ni nit ñëpp dañ ko war a toog di ko seetaan xam lan moo fa xaw ndax seen réew la ñuy defar seen luwaay réew la ñuy tëgg formé nu nuy defar seen réew loolu ñëpp ci war a am accès ñëpp war a toog di ko vivre di ko dund xam lii lan la pour ëllëg ñu xam ne lan la télévision yi nga xam ne yëpp jugoon nañ ñëw tuubaa ñun waa Touba lim nu ci xañ kenn xamul fi mu toll temps antenne yi amoon nga xam ne télévision yi dañ koo joxoon lépp Touba ensemble bi ñoom ñëpp dañoo décorosé wu dem ca ensemble bi ndax loolu nit ñi dañ ko aajowoo soxla ko mais am na nu doon demee noo xamante ni problème boobu du ci am ensemble dañ leen mën a wutal seen i waxtu wut ñi mais récupérer waxtu yi nga xam ne waroon nañ cee jàngale njàngaleem sëñ mi waroon nañ cee wane ci màggal gi waroon nañ yooyu yëpp ñu dem jox ko ensemble. ensemble ban ko jox da wax lan fa génne ci ensemble bi ak liñ doon génne fii lu gën bu fekkoon sax dañ ko wote ci wotem normal da ngay xam ne lii lu jaadu la am réew dañuy lay doxe mais bee ñu doon wane MHB lu ko lu ko gën a ñaaw ci Sénégal kenn da ko xam MH la boo xamante ni mi ngi wàññi koomam Sénégal sax da ko wàññi ndax bu fekkee da ngaa dem yow waroon a indi loo Sénégal nga nar fee def sa alal da ngay wax ni lii moo ko defee du ma am kenn ku ma protesté buñ demee ba lu toll ci ay armée wala ay sandarma dugg ci biir assemblée ngir ñuy régler problème loolu problème bu rëy la problème bu rëy la mënuñu lépp lu nuy def di ko wootee di ko def fekk ay loi ay gendarme ñëwut wala ay police ñëwut duñ ko def ci yoon loolu du am réew du doxe noonu am réew ku nekk da war a jàpp ne yow yaay sa sàndarma boobu yaay alkaat bu fekkee fa ñuy nose ak di nocce di fa tëgg loi réew mi di ko fa def ñooy dem ba ñoom saagante di fa am xeex di fa am lu nekk di fa am ñi façon ñaawteew boo gën ba nu mujj wëq armée boo xam ne ñoo ëpp ñu nekk ensemble loolu dafa ruslu sax loolu tey bu fa nit dëkkoon di fi bëgg fee indi alalam bëgg ko fee def nan la ko fee defee yu mel ni daal jar na di xalaat waaye yooyu yëpp nag li ci gën kii mooy mu perte Benno Bokk Yaakaar dong lay doon ndax ñoom ñoo ci perte lii day wane ne bu nu woon gañe bu leer am majorité assemblée kon problème bii du am ñàkk majorité moo tax gars yi yab leen yabin boo xam ne fii nu toll xoolal ñi doon député ñoo xamante nii Macky Sall nii mu doon def ñoom song ak nii mu boole nit ñi moom mer ba tax ñenn ñi ñu def leen député mais waa Benno Bokk Yaakaar gi tey xam nga ne lii nu def nu mu tuddati waa yeewi askan wi tey ku mel nii Dame Mbodj mënoon na doon député ku mel ni Clédor Sène mënoon na doon député ay ñoo ñëpp ñoo ñëpp fu ñu dem ba Ahmed Aïdara mi mën a doon député wax dëgg yàlla ñoom ñuy mën na noo doon député nag waaye ñu dem tànn rek def ko tànninu euh, na ma yàlla baal mel ni ku yorut ay bët ñu yorut ay bët nan ma baal fekk kii ma waaye kuy tànn ko yor ay bët di xool war ngaa xool ni ngay tànne nag war ngaa xàmmee jëmb bi ak dugub ci war nga leen a xàmmee Ahmed Aïdara bu toogee ba mujj mu ne day nekk maire jóge fa ne nu mu tuddati dafay nekk euh, ab député ñuy wax loolu mu ne day laaj assemblée pour yore ko dëgg la kan du ko bañal Sénégal waaye nag nit ku nekk xam na bopp yéen wulaay xam na lu lu euh, maanaam bët yéen wulaay xam na lu bopp attan beneen bi ci des rusloo na Sénégalais yëpp moom muy diggante opposition bi ak ñu dut opposition bi rusloo nañ Sénégalais yëpp te lii day gën a jëm kanam rek da nga gisaat ci suñu kanam lu gën a garaaw lii ñu def. Barthélemy buddi na micro bi kee yanu kees gi kii def lii kee def lii kee saaga kee def nangam lu gën a garaaw lii moo fay amaat assemblée bi daf mel ni liir buy màgg la lu mu gën a gën jëm kanam di gën a ñàkk keroog lii nag wax du yàlla war nañ cee wax te lii lépp delluwut ci kenn lu dul ñi jiite rek ci lay dellu ndax bu nu fexee ba assemblée léegi euh, ku nekk am nga fa yoon pour dem fa nga xam ne amatul fu ñuy tëggee luwaay. benn bi ci desaat soxna Mimi Touré laa wax mi daal wax dëgg yàlla lii ko dal ba muy gedd ne du wotewul ak ñii fal nanguwut kuy fal mbokk ak kuy nàngam ak yooyu pour pourtant moom moo fi doon xeex Ablaye Wade bi mu fi nàngee Ablaye dinañ Ablaye da doon xewal doomam ak bi Ablaye doomam génnee moo ko doon def di xeex loola ba muy xeex loola boobu la waroon a continuer lool eh, Mansour Faye lu nu ko fi def eh, kii mi lu nu ko def nu mu tuddati eh, Aliou Sall luñ ko fi def bu toogee ba tey mu ne day xeex loolu xeexul lool li muy xeex mooy liñ ko joxul mbir mi loolu lay xeex te mbir mi ñëpp a xamoon ne duñ ko ko jox ndax Marème mii euh, mi ba li mu waroon fa mu war a amoon a force amee fa force mooy force am mooy bi ñu jëlee place am jox ko Idrissa Seck ñëpp Sénégalais yëpp mer la ko mu mer booba la waroon a continuer ci meram député gii ñu ko jox benn ans benn député moom bu demaloon boppam rek ci euh, ab listu boppam xanaa wala mu neenoo war naa am ñetti député wala juróom ah ñu dem tey mag sàll di ko def nii tey koo xam def na le premier ministre def la ministre si si xomu ministre intérieur yooyu nga doon ko dikk ñuy wàññi sa daraja bu teyee ñu ne la nangam bu subaa ñu ne la nangam tii bërki démb bi nu defee campagne bi suba gi nga xam ne jamono yu saabu Ousmane kii ñu ne ko mii mi jógal foo nekk mu ne maa ngi ci kër gi tëddagoo mbaa ñu ko dee usmaan da doon wax léegi jógal mu daal di génn takk musóoram ñëw te wax dëgg yàlla man de wax dëgg yàlla ku ma ëmbal cofeel la man bu fekkee loolu la ndax cofeel gi nag dara wundu ko lu dul damaa xam ne jigéen ju am jom la ju am ful la mën a liggéey waaw am na jom li ñu koy defloo moom moom day jël responsabilité am pour def ko mais nag dafa am loo xamante nii nag du ma nangu kenn ku ma fooyee nag mag ku xamul ku ma doon te moom mag la fi ñu toll yaay la yaay la ba noppi jàng na ah, xam na Sénégal kon boppam war na koo kii xam na yi tamit APR gee mu nekk xam na parti ba bu baax xam na parti ba bu baax a baax a baax du kuñ koy jàngal waaw gis na fa ni Macky Sall doon jëflanteeg ñeneen ak ñeneen. kon xam na moom xam na li mag Sall jëflanteeg moom kon dara ump ko ci bu toogee nag ba léegi mu wax naa wootewu ma di gedd ak di def nangam na bàyyi tey parti bi complètement delloo leen seen doom ba tànk dem seet leneen lu mu def sax liggéey moo gën. seet ku mu mën a àndal dem ndax situation yi changé na fi ñu toll Aliou Nguy Ndiaye loolu laa ko doon wax moom it day toog fii ba ne nosaat eh, gouvernement bi état bi nos ko buñ ko ca boolewul mu soog a reculer wala soit mu seet beneen question. Euh, affaire politique dangay ngay foogu kenn du wax ne dangay ngay ñaaw njort waaye da ngay ñëw njort da ngay ñëw njort loolu la Senghor daan wax di daal xam naa lu xaw a xoromu la lool te yàlla fi ñu koy daanelee mu doon yóbbalub màggal Touba fi ñu toll mi ngi tàmbalee manqué ndox man nag li may laajte mooy question mooy ndox mi nan nu wax problème bii fan la nekk. problème bi moom nekkul ci ne ndox dafa amul Touba wala ndox dafee nekkul 34 forages mënta téye Touba te Touba jamono yi yàgg ya te booba màggal da daan xumb bu bëgg a dee Daaru Marnaan moo fi amoon Daaru daa daanaan màggal ginnaaw bi ñu ñëw ñu dolli ci forage bu bay laat bi fi sëñ laat di nekk daanaka boobu forage yi taxul mu bari bi te nit ñi dañ daan màggal mais problème bii ñuy dund ci ndox ma suñu koo dund même bu dul màggal dañuy manqué ndox bu bëgg bu nu génnee dina defal ay communication yoo xam ne danoo bole ko fee ndox ma dan ne ndox mi bala nu ko ubbi danooy xaar ba di heures jot wala ba màggal gi des deux jours wala nangam nan wax lu wér bu fekkee dañoo bëgg waa Touba fay ndox ñu ne waa Touba fay leen ndox Macky Sall bu yàggut bi fi ñëwee neen dolliwaat nan ñetti forage ak nangam waaye forage yu toll nii nan lan mën a manqué ndox ah nan wax nit ñi lu leer bu fekkee dañoo bëgg ñu fay wala ñi ñu jox ndox mi buñ ko mënta yor ñu wax leen ko. lii nag sëriñ bi defoon na ci lu mel ni benn appel wala benn alerte nee bu dul woon université bii Lac de ba lay song murid yi nan xam seen bopp dem ba xam màggal gi moo leen gënal lu nu mën a am du nu dikk ñu koy saboté ci wàllu ay ndox du nu saboté ci ay wàllu ndox nanu wax ndox mi fan la problème bi nekk wax ko kilifa gi ñu jéem koo dox lijjanti ko màggal bis la boo xamante nii ndox kenn da koo mën a ñàkk kenn daa mën a toog du ñàkk ndox moo naan ak moo sangoo